mesdames messieurs amis chers internautes c'est un plaisir de vous retrouver comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ci Elite euh, Fitness Elite Fitness nag la ñu seet si tey pour amal ak ñoom waxtaan toujours ñu dox ci actualité coow bi nga xamante ni ñu ngi koy dégg euh, ci salle de sport yi mais laata dara dañuy daal di rek euh, dem respecter li nga xamante ni mooy normes yi Covid 19 la ñu wax donc il faut ñu xeex ko pour ça il faut ñu respecter lépp loo xamante ni rek mooy geste barrière yi ak norme de sécurité dañuy dem jël température bi raxasu après ñu daal dem seeti ki nga xamante ni mooy Mams daal di yaatal. ayca chers internautes chose promise chose due nañ leen ko diggee woon rek tey dañ ñëw à la rencontre de coach Mams laata dara dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan à travers Dakar Buzz TV coach nuyu nañ la. ah fay nañ la man la Mouhamadou Lamine Konté ñu may woowee Mams Motivé Jeune donc euh, waa Dakar Buzz ñëw seet si ma nag waxtaan si wàll musculation si wàllu training si wàllu yu bëri quoi mais. di ngeen ko gis si kanam rek mais dina tàng de mën a ñoom est-ce que. dina tàng jër na du ma ko may dara le course des célébrités gars yi loolu la ñu wax. non loolu dara course des célébrités na am na course yoo xam ne ñoo ma gën ñoom ay célébrité rek la ñuy entraîné. Mm. waaw. d'accord peut-être man maa si gën a fësle rek bon. yàqal si jamono daal loolu la yàlla ah, yàlla gis na yàlla loolu la dogal xam nga nit moom yàlla de tracé sa sa sa mm-hmm. ba nga ñëw ba dal ci nag affaire bi xewli ibi ñëpp bëgg la tamit. pansement nag am na ñoo xam ne tamit ñu ngi entraîné ay célébrité mhm. génnu ma leen ay am na ñoo xam ne sax ñoo ma gën ay mhm. mais bon yàlla loolu la dogal mais entraîné ñooñu mais macha allah alhamdulilah maa sant yàlla bu baax bu baax a baax macha allah mu nekk euh, benn fierté en tout cas euh, du Sénégal euh, donc à travers li muy def mën ko lool macha allah donc dañuy daal di rek xuus si question yi daal di waxtaane li nga xamante ne jamono bi moo lëmbee Sénégal njaay nag série infidèle infidèle nga xamante ne fii lañ koy tourné nag dama leen fàtte woon wax loolu élite fitness lañ doon tourné série infidèle coach dañu bëggoon xam euh, bi euh, waa Evenprod ñëwee ndax xamoon ngeen euh, initiative yi ñu bëggoon a jël ak travers série boobu noonu pour utiliser li nga xamante ni mooy service yi nga xamante ni moom la élite fitness di joxe waaw au fait man bi ñu koy tourné gisoon naa ñu dugg si indi seen matériel teg mais mosuma xam ne ñuy si loolu la ñuy tourné quoi mm-hmm. parce que dañ fi nekk rek di entraîner mais responsabilité bi mooy borom salle bi ñu fa nekk mooy njóogu ay ñoom jot ñoom ñooy responsabilité bi ak yeneen course yi fa nekk donc euh, man mënoo wax xaw moon nag affaire après bu ma seetaanee publicité bi laa xam ne ndekete affaire bi lii la quoi euh, pour série la tu mais bu ma gisee publicité bi tamit dama kontaan tamit ñu wane salle bi wane gars yi di entraîner di ñuy accueillir clients yi genre yooyu bu ma gisee loolu dama kontaan mais après suivi bi man eggaliwu ma ko après dama koy di ko wax lii du may seetaan télé bëriwul tamit sama liggéey bi permettre ma loolu carrément mais seetaan télé genre mais bon ak travers lu ma jot a seetaan gis naa ne affaire bi xaw na day waar quoi gars yi di si coow. <laughs> doy na waar loolu tey dañ la bëggoon laaj nag euh, ñoom message boobu nga xamante ne euh, ñu ngi koy lancé di ko wane nag fee yooyu day am euh, ci salle de sport. fee yooyu des fois eh, du su ñàkk nag du su ñàkk comme si bureau yi tamit comme si bureau yi comme si feneen ak parce que soo waxee salle du salle bi kese la. Mhm. si bureau sax dafay am. Mhm. est-ce que mais peut-être gars yi saali lañ gën a teg bët. Mhm. salle lañ gën a teg bët euh, di leen. Eh, collé teg bët parce que liy xew ci salle tamit defe naa xewul ci bureau jigéen yoo xamante ni dañuy ñëw pour ut si euh, copain ut si borom dara ga wante xale góor yi nga xamante ni dañuy entraîner bi am doole ñëw di ut si jigéen yi nga xamante ni ay responsable lañ mën nañ leen soutenir financièrement. waaw mais loolu ku nekk ak sa philosophie. man man man man mam su moom doxew ma noonu sama gars yi bëri ñu ma àndal tamit ñoom doxew ñu loolu parce que ñoom seen liggéey nit soo bëggee li ngay def rek doo su xool leneen seen liggéey moo la mun a fay du loo xam ne nit ki mooy ñëw barre ci yow di la financé parce que si la financé si demee ba ci biir si gisul loolu da lay bàyyi kon balaa caag xam li nga bëgg mooy si sa liggéey moo la mën a teral moo la mën a dundal te sa liggéey boobu nga a mën a fonk nit ki nit ki su ñëwee saal am na loo xam ne mun na ñëw saal pour am na ñoo xam ne mun ñuy saal mun na ñëw saal di ut si copine ñun suñu liggéey mooy la la soo ñëwee si salle bi ñu teg la ci yoon teg la ci yoon yoon boobu si la ko si tegee nag après li si des yoo la yoo la concerné c'est vie la ñu dul la si topp parce que nit ki tamit soo xasee ba ñëw ba entraîné ba pare moom loo si def tamit loolu c'est ñun dul la si topp mais tey euh, da ngay dëggal ni euh, à travers série infidèle euh, séance yooyu ñu day lu am la luy am des ci salle la non des dina am du ñàkk adduna mo parce que dañ ko fi fekk te fii fi lañ koy bàyyi. Mhm. du ñàkk si saal yi dépend ak nit ki di muy ñëwee. Mhm. xam nga nit ki su ñëwee inscrire. Mhm. ñëw si saal bi inscrire dugg. lan la ñëw yow yow course da ngeen ki dafa ñëw pour entraîner. xamoo lim bi dem. loolu nag li muy ñëwee pour entraîner loolu ngay teg si yoon si ñëwee nag pour seet kete gi si benn copain boo xam ne moom bëgg na ko. loolu moo ko eh, moom la engagé parce que nee xam dem jël numéro am loolu moom la engagé loolu moom te problème bi soo amee moom problème mun na egg ba si kaw ba si patron bi patron bi la lay wax si wax nekku ci kon balaa waaw si si la kon donc comme que vieux la ñun dañ ko siy bàyyi mu continuer vieux bi mhm. defe naa am na solo loolu éclaircissement yooyu nga joxe mais coach Mams bëggoon nañ xam ndax euh, ci sa euh, expérience bi nga jot a am euh, ci coaching bi ndax mës nga dund benn mésaventure jigéen di la cokkaas wala yu ni mel daal. peut bi waa jigéen yi. moo cokaas parce que man moom wax dëgg moom wane ma loolu quoi mm-hmm. te tamit wane ma loolu benn jigéen boo xam ne kanam boobu rek ñëw cokaas mm-hmm. même soo ma ko bëggee soo ma bëggee sax nga ne da a doxaan si mam si du loolu laa lay mm-hmm. liggéey bi laa lay après si génn si liggéey bi doode kilo loo mën a wax moom bu nañ si waxtaan lépp njëkk ak teraanga parce que client su ñëwee ci yow am ñoo xam ne bi ñu si yow waxtaan ak yow. pour doxal mhm. la. Mhm. mais su yaa yow di coach bi yaa xam ne di nga bëgg. Mhm. yow yaa xam di nga bëgg si si salle bi di nga bëgg avancé loo tamit. di lépp ngay topp ay affaire de doxaan loolu du si ñàkk. di ci am na jigéen yoo xam ne dañ may ñëw di ma doxaan si. mais su ma ñëwee doxaan si dama ne franchement man liggéey moo ma tax a jug parce que aw ma jot boobu. man ban ban ban mésaventure nga si mës a dund bu la marqué. loo xamante ne daf la choqué ba nii. non ma si gën a choqué nag mais du sal mhm. loolu moo du sal si wàllu Instagram bi la may so la may gën a dal. Mhm. te loolu du sax jigéen ñi quoi. Mhm. xam nga rek suñu suñu morom yi quoi ñoom ñoo ma gën a sonal. borom ñoom ñoo ñoom ñoo ma gën a sonal. mais après parce nekk di fotow di wane seen seen seen forme yi di wane seen doole. non mais attends foog ñu wane suñu bopp tamit dañu wane li ñu liggéey. pour ñi ñi mën a ñëw travailler loolu. parce que man li may wane sama photo certes que gars yi fois te am na ñoo xam ne dañ ma see xas dama naan su attends su may vie la mm-hmm. man su ma neexee daf yaramu nen mm-hmm. parce que attends man damay def yaramu nen ñi nga def yaram nen ñu ne non non pourquoi ñu def loolu mm-hmm. comme par exemple bi ñuy wax nii on se la vérité américain dañ koy seet koy seetaan seen téléphone bi américain dañuy def seen i vidéo seen i film film euh, comme yi ñuy def comme série nga gis ko si kër yi fii Sénégal ñu koy seetaan à travers canal di déglu ma si publicité bi ñëpp di ko seetaan abonné ñëpp di ko seetaan. c'est-à-dire li ñuy kaas ci série bi ñun ñu ngi koy consommer mais ñeneen ñu ngi koy jox. waaw ñeneen waaw. Mhm. te ñi li ñuy kaas ci série bi ay infidèle infidèle man man si si sama gis ma gis-gis laa wax de ma gis ma loo xam ne da si garaaw parce que li gën a garaaw gars yi ñu ngi koy seetaan seen téléphone yi. Mhm. yooyu soo jëndee sa doom benn iPhone iPhone 11 eh, Pro wala X Max benn iPhone 6. da nga xam ne kii lay seetaan ay kii lay seetaan na la tudd sax ay dessin wala kii lay seetaan infidèle ay ñoom ni kii lay seetaan ay ñoom carte bi carte bi somb mujjee bi waaw ñoom la ñuy seetaan ñu ne waaye carte bi soo xoolee seen test yëpp loolu la fii xale jigéen nekk fii Sénégal on se dit la vérité jëluñu euh, euh, méthode kii infidèle méthode kii américain la ñuy jël li ñuy solo yëpp soo xoolee si américain la ñuy jël kon donc série sénégalais si même si grave lépp waxtaan la

c'est vrai loo xam ne dañ koy dund nga koy gis xale yi ñoom cube gardation li ñuy sol wane seen i ci euh, awra wane seen i cër yi wane lépp ñoom seen doom yi ñu ngi koy seetaan suñu doom yi seetaan sama rakk yi man sama rakk da koy seetaan mm. sama doom da koy seetaan ñeneen ñeneen mm. mais tamit si Sénégal su ko defee du ma du ma soge parce que maa ngi koy gis ñeneen ñi koy seetaan donc peut-être si sama gis-gis laa wax de. wax man ak ñeneen ñi du ma si boole ñeneen ñi si wax parce que nit ki tamit da ngay wax sa sa bopp. Mhm. parce que on sait jamais mun nañ dem ñu la diw moo wax lii mun nañ ñeeñu lii man si sama gis-gis laa wax. Mhm. moo tax ma ne man am na yoo xam ne du ma ko interdire nit. Mhm. waaw loolu moom du ma ko interdire nit ki ko mën a seetaan tamit c'est là ki ko mënul seetaan grave mais film bi amul problème. man ci man amul problème. nañ ko teg nañ ko teg. nañ ko teg gars yi bëggee ñi si war a seetaan ñi seetaan ko mais li si war a garaaw ñi censuré loolu dindi ko. Mm-hmm. comme li ñuy def eh, ay ay RTR am na ñu koy seetaan. Mm-hmm. dañoo ànd dëgg mm-hmm. dañu am na ñu koy seetaan mais attends RTR 9 moo gën a garaaw ko bii moins de 18 ans moins de 12 ans. donc loolu yëpp am na fii mais bon li nekk rek nañu waxtaan ci biir Sénégal ñu xam ne ñi koy joué tamit ay sénégalais lañ ñu jox leen ñi liggéey parce que suñu liggéeyu la la ñuy def dañuy sàcc ji wala ji agressé ji wala loolu moo baaxul ci société day delloo société ginnaaw ñoo xam ne dañuy liggéey nañ leen pousse teg leen ci mm-hmm. eh, teg yoon ñu ne leen ah série bi ngeen def def leen ko nii def leen ko waruñu ko interdit waa Jamra tamit maa leen si ñaan si loolu suñ leen mënee jàppale tamit parce que ay ndaw lañ dañuy liggéey ñu jàppale leen teg leen si yoon si ñuy doom eh, si ñuy mag lañ si ñuy doom lañ si ñuy xat lañ si ñuy nijaay ñoo koy joué kon donc nañ leen jàppale si loolu ma loolu rek laa leen di ñaan si waa Jamra ñu bàyyi ñu gars seen liggéey mais lépp ñu teg ko ci yoon bañ a dérapé wu quoi comme que dëkk l'islam la ñuy wax dëkk kii Sénégal boo xam ne ñëpp a fi bëri dañoo mélangé wu. am na chrétien am na musulman te doo xamee sax musulman ak chrétien te ñëpp ay joué ci film bi kon donc nañ faa gars yi liggéey quoi ci benn côté. Euh, macha allah defe am na solo lool aussi euh, ni mu waxee rek moom point de vue am euh, infidèle amul benn souci pour ñu mën ko teg parce que ñu ngi seetaan lu raw infidèle à travers suñu télévision yi ak li nga xamante ne mooy suñu téléphone yi. Euh, ba tey dañuy waxtaanee mbiru salle de sport yi jamono bi ñu gis salle de sport yi bëri lool macha allah. Ah. ku jug ubbi salle de sport. Euh, normes yi est-ce yi ñu ngi koy respecté ak lan mooy li poussé euh, ndegam liggéey bi dafa am xaalis. waaw gars yi salle de sport moom xam ni ki moom ku nekk li ngeen sentir man mii mu ñaan naa yàlla sa am salle de sport. Mhm. sama copain yi ñii ay ku nekk ñaan na yàlla am salle de sport mais tamit lépp si norme lañ koy teg comme salle bi nii lépp si norme lañ koy teg yor seen papier yor seen lépp. boo xam ne ñoom si règle lañ koy teg même si xool si course yi tamit lépp si règle lañ leen koy leen di tegee mais yeneen saal yi moom wax dëgg yàlla moom yeneen saal yi mënu ma si dugg parce que loo xam ne xamoo ko bu si dugg parce que munoo munoo xam fi nii fu lay jóbee moo tax man am na yeneen yoo xam ne du ma si duggu parce que nekk yaa xam lu tax nga ibbi ko est que am nga papier wala amul papier loo moom wàllu gouvernement bi moo si a taxaw ñi xam ne ñoom ñooy res euh, wala impôt bi wala papier bi entreprise est-ce que waa IPRES ñoom mën a ñoom ñoo mën a kii teg euh, tegaay daan si loolu. est-ce que ça paye bien en fait. Euh, ça paye nit ki si niveau fu mu toll. ak sa gëm-gëm. man mam si francement man du ma dem salle nga ne rek may fay soixante quinze mille par di lundi ba vendredi di lundi ba vendredi. ah wala kii nootu sax euh, nekk 8 heures ba 17 eh, heures man moom suñu moo ko def mais am na ñoo xam ne tamit dinañ ko def ñooñu seen liggéey ki nekk yaay xool di sopp li nga tollool li lay fay du ma ne carrément nit ki lii war a ko nangu lii war nga ko nangu man si sama côté man si sama côté man man du ma ko nangu de man moom si la wax man kenn moo fay wax parce que jot naa ci ja jaar naa ci fay nañ ma 70 000 si saal fay nañ ma 70 70 000 fay nañ ma. quatre-vingt-dix mille. dama xam ne loolu waaw c'est mes débuts mais pour l'instant noonu moom franchement man def ma ko mais. non léegi xaay xaay coach nga léegi c'est le coach des célébrités man xam naa ne sa cachet doo ko wax ci après naa. non <laughs> non sama cachet pourtant dafa ndaw sax rek sama cachet. waaw sama cachet dix mille la. bàyyi après ma jël dix mille francs la dix mille parce que foo ñu waxtaanee tamit ci séance particulière yi ngeen di def à domicile. des fois tamit euh, yéen a ngi dem di entraîner ay kilifa ay nit yoo xamante ni des fois wala déplacement bi day dis ci ñoom ci seen i biir kër. waaw loolu moom man si sama côté moom franchement dafa yomb trop man si sama côté client yi may dajanteel moom personal training moom. Mhm. franchement dafa dafa facile si man xam nga dafa dafa si man si nit ki la yow ni ngay ñëwee man am na ni ngay ñëwee ci man dama lay kii mais am na ni ngay ñëwee ci man dama lay ouvert waaw man su ma ñëwee si kër. xamoo xammeewu ma la client nga wala man course la wala léegi non non je soo nekkee sam euh, mag nga je te comme sam papa li muy joxee sam papa cër ñoo entraîné ak yow kafa ak yow ree ak yow di la waxtaanal loo pour nga am pour nga bëgg ko mhm. parce que affaire loolu la parce que nit ki tamit comme soo koy jàngal doo ko forcé mhm. lépp neexal la mhm. ma loolu moo tax man si côté personnel training yi moom franchement foofu moom côté boobu man amoo yëpp la parce que li tax ma laaj la comme mooy euh, am nga habitude tamit di entraîner ay célébrité ay star est-ce que yomb na liggéey ak ñoom parce que c'est des personnes en général un euh, ma ne carrément réservé mais dañuy dañuy dañuy xool en tout cas seen entourage. waaw n'importe qui la ñuy jox euh, confiance. waaw man moom franchement man amoo problème boobu. Mm-hmm. man boobu. mi star yi ñi ma jot liggéey yëpp ñoom Assane Diousé bëri nañ ñi ma jot a liggéey yëpp franchement amuñu benn problème sax. Cheikhou Kouyaté ñoom Cheikhou gars yi ñoom ñëpp gars kenn amu ci problème parce que dañ may bil porte bi xam nga nit si lay bilee porte bi day day day yomb liggéey te au contraire tamit. gisee ñi ngeen ñooy ñuy wax ni ñooñu dañoo compliqué au contraire ñun ñii ñu sama genre ñoo xam ne ñu si kii bi lañ nekk ñu ñoo gën a compliqué liggéey ñu mm-hmm. ñoo gën a mm-hmm. parce que xam nga gaañ bi entraîné rek ma ne sama coach bi man tey li laa bëgg a liggéey moo ñëwaat si dans benn kii man li laa bëgg a def li laa bëgg a fitness amuñu fu ñuy taxaw sama genre yi mais ñee ñoom seen objectif ma la la li laa bëgg nga teg ma si yoon tak tak ñoom loo tax seen liggéey dafay yomb par rapport que koo xam ne day ñëw saal tout temps di la indil tey li laa bëgg a liggéey bu subaa li laa bëgg a liggéey ay changement yooyu yooyu day métti si course a li nga bëgg a li nga bëgg a defar nga ñëw defar loolu mais bul ñëw saal te bu subaa nga ne euh, fessier laa bëgg a defar bu grâce ba nga ne abdominaux bu grâce ba nga ne da ngay bàyyi nit ki nga jox sa bopp mu liggéey la mais franchement si côté personnel training service training may entraîner moom macha allah muy benn problème. qu'est-ce que ça te fait boo déggee euh, ñuy yàq deru salle de sport yi jamono bi. man en tant que coach professionnel. Euh, daf may metti daf may metti. Mm-hmm. de daf may metti parce que foofu laay liggéeyee. di dundal samay waajur mm-hmm. kon donc nit su ma gisee mu koy yàq rek daf may metti mm-hmm. parce que du liggéey bu ñuy diaboliser mm-hmm. sa eh, eh, wala fitness liggéey noobu la barki xam ne liggéey noobu la parce que médecin yaa ngi fii ñun médecin da ngeen dem si médecin mu ne la hé dama si sport bi nga dem def si sport kon ñun liggéey bu noobu la ñu kenn mënuñ ko yàqal ku sax dañ ko yàqal sax da lay freiné man moom si de ku ñëw si man ma di commencé di diaboliser salle bi léegi lii damay jug dem sama yoon parce que duma mën a xeex yow parce que weesu naa di xeex ay ñi si benn ñu ne mam su may nekk fi di xeex ay tànk la la ñuy xëccoo affaire Saliou dama la fee bàyyi dama la xam ne sa conscience moo si egg mais ñun li ñuy liggéey liggéey bu noble la te ñu ngi siy fayeku bu la ñu ngi siy solo kosaar mm-hmm. bu rafet te ñu ngi siy solo bu rafet ñu génn di ñu xool kon loolu loolu dafa neex quoi mm-hmm. kon loolu kenn du ko mm-hmm. te ñu ngi siy faj ay nit nit da ngay gis koo xam ne amul mu am problème du waxtu nga ñëw fi saal ñu teg la ci yoon mhm. di nga gis nit koo xam ne dafa feebar feebar boo xam ne si dem jaabante fu ne mu ñëw fi ñu faj ko mhm. loolu yëpp si cadre boo xam ne dañ dañuy teg si yoon mhm. jàngal ñu ko kër si yoo xam ne ay ñoom saakura gaay bëri nañ fi ñoom gaay bëri ñoom Pape gaay yoo xam ne dañuy teg si yoon ñu ne la eh da yoo xam ne ñoom Papa Touré gaay bëri nañ quoi ñoo xam ne ñoom dañ ci am expérience. sûrement sama grand bay toog Sakura. ñoom dañ ci am expérience di ñuy teg si yoon kon boobaa ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ dañuy jàng man ba léegi damay jàng mhm. ba léegi certes que course mais ba léegi damay jàng te ñi ñuy teg si yoon di ñu wax ngeen di def ñu ngeen di taxawee eh, ni ngeen di waxee ak nit ni ngeen waxee ak client client ni ngeen ka loolu moo tax côté boobu nit si ñoo di diaboliser que Issa du ma la sax faale dama xam ne sa xel moo si toll ma dem si yoon mhm. waaw moo eh, sa xel moo si toll après ngeen comprendre man des fois daf may dal damay génn ñu ne ma boy sa waay li ngeen sax yi la mhm. ma ne ok mais ñi ma doon wax loolu pour entrer pour saxee la di rey sa bopp si salle ñu ngi nii ñoom ah moom suñu tamit dañoo bëgg a entraîner leen loolu dañ si jàpp ma ne non grave la toog leen fii quoi samay ah, gars yi. Mhm. des xam rek foog ñu. et puis et puis ça ça fait du bien parce que ça rajeunit un peu. la de mhm. man moom franchement maa si gis sama bopp parce que macha allah dama dalul nii xale quoi. waaw paa la la de fi mu nii mais il fait jantal nii rek. non gis nga mais xam nga sport moo mel noonu de sport moo man su ma la nee eh, am na femme bi may entraîner du ma wax trop. 52 mhm. mais soo ko gisee mi escouade mi entraîné yenn vertus yi non da ngay waaru mhm. su ma ko dugalee sama sinam xale jigéen dañu noonu attend mhm. kii amul 52 mhm. man leen barke yàlla loolu am ñu ne ma non non fenn pour te euh, dafa baax dafa baax sport dafa baax sport mooy médicament bu gën si médicament yi. barki rasulaay ku ko def ah guddi far nga si jële ak bu wér gu yaram bu baax barki yàlla te doo ko rëcc mais nag nañu bàyyi yenn lekk yi tamit quoi. <laughs> macha allah defe naa am na solo lool euh, sport li muy def euh, ci bien bienfait ci doomu aadama bi bëri na euh, ñu bëggoon nag nga ñëw ci sa relation ak Ibrahima Ibrahima Sall. waaw ah, Ibrahima Sall relation bi ñu am relation liggéey. après li si des moom loolu relation privée la maanaam moom quoi. waaw jokkoo ñu ci tuuti rek. non mais li xam nga liggéey bu am na liggéey yoo xam ne privé la. Mm-hmm. yooyu mënuñ si xuus carrément di si wax quoi. mais sama gars yi lañ booy bien lañ ñoom ñoom seen seen groupe yi ñoom Aïssatou Kébé ñoom Idrissa ñoom Sidi ñoom Youane Youssef ñoom seen cartel bi ñoom euh, kii waaye ñoom bëri nañ quoi bëri nañ bëri nañ boo yoo xam ne. ay sëb ay ñoom Zeyna Zeyna Diaw ñoom ñëpp ay gars yi bien lañu franchement. tey lan moo la gën a marqué ci moom ci jikko ci comportement en tan que doomu président de la République. non en tant que président de la république am na loo macha allah moom loo mën a ko si seede nit ki julli jële na waaw kam diine te waxtu du ka raw. Mm. loolu mën naa ko seede si moom tu vois parce que chaque fois si nga sax dina xaama ah, julli genre te day jàng alxuraan te loolu moom mën naa ko si moom. waaw waaw li muy nekk xale yëpp diine bi moom fonk na ko trop. waaw macha allah foofu moom loo ma si gën a neex parce que nit ñi yemuñu. man gis naa façon nit bu nekk mais booy mais entraîneur yëpp ñoom seen groupe yi seen booy yëpp macha allah gars yi booy bien lañu. te maanaam ñoom suñu gisee sax day gis sax entre pour poursuivre ak élève am quoi. comme ay morom waaw comme ay dafay war a dellu sax jiw fekk ba di ba tàpp ñu ne eh booy tey dellu nga kii quoi mais mooy loolu quoi booy bien lañu macha allah. macha allah am na solo loolu coach nag waxtaan bi neex na lool waaye ah, a mooy ñuy entraîné tamit ñu xam client li mu ñëw pour si si salle. Mhm. ñun xam ne ñu ay course lañ tamit ñun salle ñu ñoo ko mën a valoriser. Mhm. jox ko akam ba kenn bu mu yàpp. Mhm. waaw jox ko akam ba kenn bu mu yàpp comme yéen ni ngeen di joxe nii parce que caméra baa ngi nii. preneur baa ngi nii. présentateur baa ngi léegi yow présentatrice bi soo amul caméra est-ce que sa émission na lay jàllee. xam kenn du la ko yàqal. ki ñëw di yaakaar lay sa Dakar Buzz looy def mm-hmm. da nga bàyyi dem sa yoon mm-hmm. xuloo moom do xewam parce que dépassé na loolu mm-hmm. est-ce que comprend donc loolu kese la man li may ñaan yàlla mooy Sénégal jëm kanam ak feebar bi ñu nekk nii mooy Covid bi mu jugee fi jàmm ak saam pour ñëpp dellu si seen liggéey parce que tere nañ ñu bëri def seen liggéey carrément tere nañ loo xam ne saa fonte bi tere nañ eh, tere nañ ñu bëri kon donc loolu ça me fait mal mais li ñuy ñaan yàlla rek nañ jël seen mesure jël seen di laal si gel yi ba ñëw jaxasoo pour feebar mun a jógee ñëpp mun a delluwaat suñu liggéey quoi waaw mais maa ngi sant waa salle bi Elite Fitness nekk immeuble Kébé di sant waa Dakar Buzz buzz rek ngeen am nag yéen moom yéen a tëj bi de <laughs> macha allah yéen a tëj dëkk bi yéen si course yi bu nekk leen di laaj ay question man man xaw ma question foo sax foo ko jëlee di ma laaj ay doom ay ay président ku la ko wax ah sob de yéen man xaaral ma moytu sax bàyyi dañ ma génn di génn si mbedd sax gars yi di ma laajte teg mais maa ngi gërëm sama gars yëpp mooy Ibou Crossfit Pape Cissé Sakura gars yi bëri maa di gërëm ñoom Papa Touré ñoom Laye ñoo xam ne ñoom Alex salle Crossfit bi gars yëpp maa ngi sant rek franchement man salle bi dañ ma dañ ma fi yaatal xam nga lu tax ma am fit ñoo fi di fi def interview parce que dañ ma fi yaatal mhm. suñu ma fi fi yaatal woon du ma am fit boobu ñu def fi interview comme donc yaatal mooy course yi mhm. ñëw ba si kon donc ñoom ñëpp maa ngi di sant di leen gërëm waa Dakar bu set maa ngi di sant maa ngi gërëm sama waa dëkk waa Casamance comme Casamance laa jógee donc sama olof mooy loolu ko xam ne bon dañu comprendre mhm. que ñun ay soose lañ mooy mais Dakar Buzz ci kaw ci kanam. yéen a fi ne de. macha allah donc nii. non 3 millions fa ngeen egg gars bu abonné leen si Dakar Buzz pour egg 3 millions yi. dëgg ñoo egg 3 millions yi. waaw incha allah macha allah ni ngeen ko gisee nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre de coach Mams fii ci Elite Fitness di remercier personnel bi yëpp pour accueil bi nga xamante ne rek jagleen nañu ko yéen ñi nga xamante ne yéen nañuy seetaan amuñu seen fay di leen jaaj jaajëfal bu baax wante olof Ndiaye dafa ne feccu liir bu neexee ndey jaajàpp si mbagg ji ba tax na euh, damay remercier bu baax sayeer foofu ci marché euh, ci leen moom a génne ci Nike yi nee naa ko euh, temps yi wàññi sa loxo li ngay def man ëpp na di remercier Moussa foofu ca marché Gueule Tapée pour accessoires yi guug si la ma laalal tey waaw Euh, Michael Coiffure ci bopp bi euh, merci de nous avoir suivis c'était un plaisir euh, ànd ak yéen saa su ne naa leen mbégte may jural di leen jox di daje très bientôt pour yeneen waxtaan lépp ngir daf seen bànneex yaa ngeen jëf